Euh, affaire collectif bi. surtout. je crois que aujourd'hui euh, collective bi li mu ñaanoon président du woon lii. ah lu mu ko ñaanoon. voilà très bien c'est important collectif bi bi ñuy bind booba conseil constitutionnel àddoogul la liste officielle et définitive. collectif bi bu muy bind dafa gis ne ne ñoom ñëpp en réalité ñu bari dañu spolier seeni parrain da leen tooñ et que exposé nañ ko démontré na ko. Mm-hmm. ki ñu bind mooy le président de la république clé de voûte de toutes les institutions président conseil supérieur de la magistrature donc am na pouvoir boo xam ne tey bu ko demandé conseil constitutionnel ñoom war nañu war a ñëwaat ci loolu te li ñu demandé woon à l'époque c'était que tey conseil constitutionnel reveniraat ci seen parrainage avec le bon fichier et on l'avait dit qu'en trois jours tous ces la là mënoon nañ xoolaat seeni parrainage avec le bon mais je dis encore une fois tey président dafa bàyyi ba lépp jàll ba nit ñi ñu ngi déposer seeni i seeni seen i bulletin et cetera et cetera mhm. procédure baa ngay avancé tey mu doog leen woo je crois que non nekkin sens non sens amul sens ba mu leen waree woo mooy bi nga xam ne tey conseil conseil mu ngi càmbar boobu la leen waroon woo pour que ñu xoolaat ces cas mais tey amul sens li mu bëgg a def nii